ma ne ñëwal ma wax la fooy jaar alaaji ñëwal ñëwal ma wax yow xoolal fii hey bul faale ñii bul def lu gaar yi def seen yow danga mën ba fii hey faatal ñii bul sa tënt ñii they could call us boring or whatever it don't bother me kan wi ñoo kana bula molu nooma kana bula molu nooma molu mam betiya mfuru ñoo kana bula molu nooma to be the coolest. Don't be foolish, only lies. They wah wah you near your friend. What they wanna do to you? Definitely like cocaine and a cannon. Walk offend and a feminine. They ain't real, they pretend. Started fake, yo. How could they be real? asalaamaaleykum wa rahmatulah suma gaañ yi man la wax seen xarit Marie Bachir comme que tamit Marie Bachir ñëwaat naa fii suma beneen recette ah su si ma ne ñu baax ñi nga xam ne dama leen bugg a bugg a dee ah lu ma am rek mu yomb mel xaaral ma séddoo ko yéen dañu leen wax yéen ñëpp bàyyi leen si jàmm xool ne vidéo bi danañ fekk si jàmm dama leen indil nag. a very quick on the go am um, breakfast xam nga léegi léegi jot du am léegi léegi xëy na ñoo xam ne ñu ngi liggéey si office yi wala ñu ngi liggéey si yoo xam ne liggéey boo xam ne dafa dangaa jug suba rek doo am sa joti ndiiwu soo ma defal leen a very quick breakfast boo xam ne on the go la dangaa ko lifin rek blend rek aw sa yoon rek téye sa kopp dem soo léegi sama ingrédients yi ma am fii nii gis ngeen ne oats bii nii moom laa am koy ka oats bi moom laa am soo simple ci sachet la nekk ba tax ma tegal leen ci like am package bi su ko defee ngeen gis ko bii la moom laa am fii nii ba pare tamit ma am milk fresh milk am wala mu i danga am long life bi wala any fresh milk boo am am the milk of your choice mun na moo nekka semi skim milk na moo nekka soya milk bu milk boo xam ne daal is your choice rek is fine moo nekka fii moom laa def fii nii ba pare ma suma sugar man sugar xëy na moo nekk suma <clears throat> moom laa choose waaye mun ngaa use syrup wala honey is up to you yow boobu bugg rek léegi maa fini suma like on the go cup boo xam ne soo feree fa nga foo def rek aw sa yoon dem fu mu nekk ñu

comme you can substitute the um, the sugar with either honey or syrup or white sugar it's up to you your choice am a am na idée bëgg lekk oats with banana together so su fekkee tam da ko bëgg smooth smooth tam with banana you loolu loolu noonu tamit is fine mun nga koo smooth together with banana daf ko gën a am lifin parce que banana moom daf day joxe like energy ak yooyu so mu ngi nii so léegi bi def mooy xam ngeen lii yomba na xëy suba rek nekk si xale yi wala dara jël rek def nii sa kopp mun nga ma dama ko def sa mu xalal laay waaye soo bëggee mun nga koo def sa mu gën a is up to you naka nga ko buggee rek xam is very easy that's it tada am nga sa on the go breakfast ah te nii di Nancy si yoon bi te doo si sona doo toog di defar cereal do toog di def dara is very simple comme moo leen ko wonee dangaa jël sa oats rek ida benn wala ñaar comme ni ma la ko wonee wala ñetta dafa des si lan nga foog ne loolu moo nga def tamit sa fresh milk together nga def sa ida sugar or oh, honey or oh, syrup. It's up to you. Oats being ni gis ngeen bi la mun nga bi way mun nga am any kind of oats. Wow. Way man bi la am. Um. So pare rek nga def sa blender, ah. blend so ko bëgge blend ak banana, it's fine. Nga blend ko together with jo banana daf ko gina neexal ah. sa. So pare rek def sa sa cup, just on the go cup, téni rek. Aw sa yon dem te do sona. Ah. understand nga do si nekay difu te is very nice very this so len it's is very very nice dafa nek bu ko waaw soo leen ko mosee di ngeen wax ne ah Marie affaire bi saf na kon lii laa leen amaloon te xam ngeen man nu mu yombee rek yéen suma gars yi noonu laa ko bëgg defee ak yéen moo tax ma indi leen on the go breakfast bu yomba bi man mi sax daf maa dal dama xëy suba sax di dem sax du ma am du ma du ma du ma du ma am time pour ndéewu waaye with this help na ma torop damaa téye rek aw suma yoon dem naan ba bam bam lifin rek ma dugal suma baag aw suma yoon ba peut-être suma biir bi dina dina dina ma téye ba time bi maa am consumer gars yi lii laa leen amaloon ah on the go breakfast Um, yéen ñëpp di leen wax ne ngeen ngeen share ngeen am subscribe comment and like thank you so very much and thanks for watching see you guys in my next video bye. hey